yaa ngi. waaw naka la def yaa ngi numéro bi ba léegi kon. waaw waaw. <laughs> ah man ka damaa jaaxle damaa gis ñu dugal ci affaire bi loo xamante ni moom mën a waaw déet sama góor gi moom. waaw gis nga de gars yi ñoom ay doon am lañu lu leen lañu def. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu na ma man maa ko def. allahu akbar parce que xam nga dama ñëw sama jabar wax ma ne danga eh, bàyyi def feebar rek.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 Euh, donc daal vraiment yal na la fi yàlla bàyyi suñu kanam lool lool lool may la wér gu yaram bu sax dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk bàyyi yow bu la dara jot bu la dara jot wax fa dëgg saa dama ko dégg rek dama tiit wallaay azim amiin wallaay azim waaw mais nag waaw mais sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax ah. ban sant yàlla bu baax mu ne sama waa kër sama mbokk ñëpp a jaaxle fi mu ne sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla yàlla na la fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam a kanam merci beaucoup merci allez merci beaucoup Euh, merci.